kii yi seetaan Wassare Lamb nuyooti nañ leen am kontaante ak mbégte kom ni ñu leen koy defalee ñu ngi fii ci open press yaraax caatu yaraax moo ñu fi woo xale baa ngi noonu di dugg si doomu yaraax baa ngi noonu di ñëw hey xale baa nga noonu mbokk yi waay njaay production mooñu woo woo ndaysaan xale baa ngi noonu. jaaxal cey làmb leketa nga nee ca kanam lee ceeb la ak dugub ñu jaxase ko am na keneen ku ñëw cey làmb am na lam koy wax en direct ci wasaare làmb am na butéel bu muy génne sëñ Bas butéel ba dajji na ko saafara la def lam koy wax làmb lépp tegtal la saan am na beneen mbuus bu ñu génnee mbuus bi lu mu def suuf la suufu géej guux na ci ñetti yoon moom caatu yaraax sotti na ci loxo ba diw na ci kanam gi as na wàcc jiital na tànk ndi caatu yaraax jiital na tànk ndi joor ba xale baa ngi noonu sottil nañ ko ma ngay dox ma ngay dox yaakaar la ci làmb rawatina yaraax gi ñu ko teg am na fi cër waaye yaraax am na côté buñ ko teg am na loo xamante ne yaraax maa ngi koy bàyyi xel ci moom cey làmb caatu yaraax a noonu ku nekk nga koy tegtal ku nekk nga koy dee sëñ Bas maako ko fekk Gambi maa ko fekkaat Sénégal ma nga noonu yu dongali di dem xale ma ngay wër waaw waaw kookoy caatu yaraax ma nga noonu di wax xale la yaraax am nañ ci moom yaakaar hey serpent yaa ngi daje xale bu garaaw caatu yaraax ñëwal gin baagin bàncax gin gin jël bàncax bàncax rëy jërëgin <laughs> waaw waaw jërërëg rëy naa ñi sëñ Bas eh, Moussa Ndoye dugg si na eh, doomu yaraax a noonu ndam lu ne indi ko yaraax Moussa Ndoye xale la boo xamante ni bàyyi leen ko xel Garga Mbossé la mujjee bëreel fële Iba Mar Diop ndeysaan gaynde la Moussa Ndoye gunge ay rakkam gunge ay xaritam nee na ko faas yóbbu ko Moussa yaraax gaay Moussa yaraax gaay Moussa Ndoye yaraax ala waa yaraax saa kaay ndeysaan Fass aadaa ngi nii ak cosaan xoolal ma gaynde yi dugg si gaynde yaa ngi noonu waxel dem na ci Sadio Ndiaye ndeysaan Sadio Ndiaye gaynde gu mag nga xamante ni képp kuy simb rek Sadio ngay jàppale gaynde nañ ma ba taay sëñ Bas sa mbokk yi jàpp nañ ma ba taay. boobu xamuma ko. sa laalu Mohamed wala laalu Mohamed. dikkum daakum. daanu sore. waaw waaw sëñ Bas maay xanaa maay làmb. gaynde gi dégg na sama jat jaatu yaraaxa gi noonu. lay ziar maa lay dool ziar naka yi tey sant yàlla bu baax tey ñu ñëw fekk la ci caatu yaraax mu mel ni Moussa Ndoye mooy bëre sa diggante ak moom lan la euh, sama rakk la ma jox cër cër bi ma jox euh, mérité ma ko laa mën a wax ay morom na ñun ñëpp ma njëkk leen bëre mais bu ma gisee ñaari loxo la may nuyoo mbër am wax lan def fan laay dugg nan laay doxee da koy wax ak man ma koy yàlla na def lool yàlla na ko yàlla may ndam ndam lu kawe njortam yàlla lu doon réserve. xam nga ki muy bëre serpent. waaw serpent gis naa ko xam naa ko mais serpent gënul gënul neex gaa yi dàqul bëre gaa yi te am nañ yaakaar dañ koy daan sax dañ koy daan. si kàddu yoo lañ koy def. dama koo fekk Gambie moom caatu yaraax muy liggéey lu métti tey mu ñëw sëñ Bas daf ne caatu yaraax bi ma gisoon Gambie. dafa mel ni mag ci man waaye ki ma gis xale bu ndaw la am. tuuti la. xale bu tuuti bu ndaw xale bu ndaw xale ba nga xam ay 2000 ay 2000 ay 2001 xaw ma 2002 war a ñëw bëri ni sant yàlla bu wér di ko ñaanal su fekkee mag dina ñaanal rek mu am yàlla na ko yàlla may ndam si barke yonent bi barke Cheikh na Tidiane barke Serigne Babacar si. li ma dégg muy xeeñ. waaw gisuma ko muy riir. waaw waaye daa mel ne année blanche la ci Moussa Ndoye. non nañu xool rek nañu xaar bu may année blanche damay taxaw ni damay année blanche su ma neexoon suba suba ma jël ko. Moussa Sénégal namm nañ sa combat. waaw mais dafa am erreur boo defoon yaa Garga Mbossé ñu di séntu ne Moussa Ndoye dina ko rectifier est-ce que di ko rectifier. si kàttanu Yàlla dinaa ko rectifier ci kàttanu Yàlla dinaa ko rectifier. jaajëf Moussa jërëjëf. le grand champion. waaw ndeysaan kontaan naa nga nekkoon ba léegi jugoo fa. ndeysaan dëgg la. gis nga la nga def kaw la. waaw waaw man bi yaayoo la <laughs> yow yaay bandi. waaw ak kees. ndeysaan ak ah. teg rek ah. xeex. booy bi dama ko matt at bi jox ko victoire ma ne ko même su ma ko mattoon wóolu ko waruñu koo jox loolu avertissement la ma demaat Kaolack encore dem bay daan waa ji benn gaaram jóge fee dugg sama diggante maag waa ji at ma victoire kon am na xam sant yàlla la quoi. non mais yow dafa am benn état de forme a la gis keroog bi yeewu si làmb ji léegi nee muy ñaari fan mbaa ñetti fan ñaanatuma si yàlla daanu si man ay ponkal yoo xamante ni fi mu toll nii ñoo téye ku ci mel ni wulli liiru jaan a batika yaa doo ñëw foofu de yaaw foofu doo fa dugg yaaw doo fa dugg yaw laali wala yow da nga ne wulli ne yaaw jàll da nga ne un et deux bokkuma ak deux liiru jaan ñooñu ñoom ñooñu ay comédien lañu batika ah, ñooñu dama leen a dépassé ñooñu ay mbëri waroon lekk ay millions lañu si làmb ji dem ba à la fin mënut a ñëw lekk demuñ ba ANACIM ñu xam ne lamb ñu si doon lekk ay millions ñu bëgg indi affaire commune te man dépassé naa affaire commune ba suñu bamba. léegi ñoom ñooñu kenn nga ci gën a bëgg. non man liiru jaar ma foog ma xaw ko jël may ko sens quoi. waaw waaw waaw liiru ma bu ñëwee naa ko may sens. mais nag instant bi moom mooy loolu quoi ba suñu bamba. ah yow. président de la république. waaw Ablaye Wade rek ak sëñ Abdou Karim ak borom Maxime wax laa ba suñu bamba. boo goree ci gor la bokk jëfin gor Ablaye Wade rek loo wax mu ne Ablaye Wade. moom Yawou Dial kaay leen hey mbaam Caatu ñu ñëw fii ci sa open press ñu leen di nuyu yéen ñëpp ñu mbokk internet yi fu waay nekk ci adduna tey Caatu Yaraax mooy def open press am fii ci Yaraax ñu ñëw fekk fi say mbokk say am di jàmm say xarit rawatina say magu mbër yoo xamante ni fekk nañ leen fi joxe exemple la ku ci mel ni Moussa Ndoye ñu gis ko fi Caatu Yaraax ngay bëre ak serpent ban yëg-yëg nga am ñu bàyyi la nga nuyoo nuyu àdduna bi lay seetaan yëpp. waaw on jubila bisimilah. ginnaaw ba ma sant yàlla julli ci yonent bi sant suma ñaari waajur maa ngi nuyu àdduna di nuyu waa Yaraax yëpp di nuyu waa Kër Massar ñi ma teewal yaaw jaal waa Buun di nuyu ñëpp ñi nga xamee ne ñoo fi teew ci ban bi écrit askan bu Yaraax mbëri écrit Yaraax Pape Laye Diène ñoom Moussa ak ay élément maa ngi sant ñëpp di sant journaliste yi fi xam ne ñoo fi teew wa ah. waaw waaw ñu ñëw bisimilah. ak waa dama laa fekk Gambie gis la ngay entraîné lu met nga ñëw fii sëñ Bas mii bi mu ko gisee nee na ma est-ce que caatu yaraax bi moom laa fekkoon Gambie ma ne ko moom la lan moo la yóbbu woon Gambie ak lan moo tax nga ñëw Sénégal pour combat bëre bi. waaw ñun yaraax lañ dëkk te maanaam dëkk bi nekk na dëkk boo xamee ne boo fi dugul doo xam ne dëkk mu rëy la te dañoo soxla champion. ñu ne ci ginnaaw mu Ndoye nag ak yeneen éléments yi fi nekk muy ñoom Wos Jambar ñoom Modou Sodu ak champion yi neex yaraax yëpp di sa gërëm tamit waa Dalifor ndax gis naa seen ñu yóbbu woon Gambie ndax grand combat lañ am du lu ndaw si ñun suñu premier grand combat la te bi dama soxla ndaw maanaam duñ def leen loolu maanaam dem uti doole mu jaral ñu nag trop ndax maanaam bu fekkee dama dem Gambie pour serpent kese kon defuma lamb dama dem dama dem Gambie pour liggéey ak adversaire yi nga xam ne ñoo nekk sama kanam yëpp ak àdduna ci lamb ñoom ñoo ma tax a liggéey te du ma taayee di ci liggéey aussi tamit loolu ma yóbbu woon Gambie. keroog damaa gis signature contrat bi. yaa ak serpent yéen ñaar est-ce di ngeen xeex wala ngeen bëre. waaw loolu moom doo koy déewee ay supporter am Serpent su ma jàkkaarloo moom xam nga ne du xool sax benn bët signature contrat bi yaa ngi fa woon Serpent si giwul xool ma ñun dañuy liggéey ay ndaw lañ te ndaw bu liggéey ba taxaw boo ko nee jàkk xam ne góor nga jàkkaar lool Serpent du ma xool ma koy xool séquma koog moom sax Thier aca Caatu Yaraax dañuy gis nga jógee ci adversaire boo xam te ne bi mooy dab daan nga daan ko te boo xoolee adversaire bi nga bëreel ak ki ngay bëgg a bëreel dafa am différence ndax xam nga bu baax a baax qualité ki nga xam te ne bi moom ngay bëreel muy Serpent Noir waaw macha allah ci kàddu gi ci euh, question bi euh, serpent dafa njool deux ziga mi nekk parcelle moo ko sut deux ziga ñaari ji la laa ko daan ci benn tàkkusaan moo sut serpent te ëpp ko doole aussi tamit dab daan njool la gis nga ko aatu aussi tamit dafa njool man mosuma bëri ndaama waaw kon serpent waruñoo mën a jaaxal. mais ngay bëreeg booy boo xam te ne bii maanaam yaram yi dafa mànd ci bëre fu mu jàpp day bëre. ndax bàyyi nga xel bu baax a baax sa diggante ak moom. waaw boo seetaanee ay combat am seetaan combat Thiatou Yarakh di nga def différence ndax wax dëgg fa yàlla ñun duñ jàpp di bàyyi te ci kàttanu yàlla laa mujj du yàgg serpent du ma ko jàpp di ko xool déedéet loolu taxul Fallou Ndiaye fay ñu waaw moom nag c'est normal parce que mbër moom boo ko seetee li muy wax rek bokkut ak li muy jëf te man yaakaar naa presse bi chaque jour li fi wax rek bu ma demee stade moom laay jëfee waaw. jërëjëf serpent dégg nañ yi nga tontu léegi léegi euh, jërëjëf caatu yoof dégg nañ kàddu nga joxe léegi léegi mais boo xoolee yaa ngi bëri xam ne mooy serpent nee na da nga koo jàppee mag te nekkul guy gu daar du may benn xale di jaar ci moom di yéeg yow lan ngay waajal biso parce que sànq ba léegi wax nga wax ba teg serpent xam nañ ci moom bëre ak xeex lan ngay wàcc moom waaw li may ci moom mooy mu ñëw esat def mobilisation bu forte ànd ak caat mais sama doomu nday wàccee tambour major bi ñu ñëw def ambiance ci esat bi ci yar ak teggin ànd ak suñu coach yi parce que ci loolu la ñuy formé ci yar ak teggin bu ñu ñëwee bëreeg serpent incha allahu rabi duñ taxaw di ko wan ne ñun dañoo fay pour ñu taxaw wala pour ñuy reculer di génne saat li ma koy ñaan leen kese la mooy que moom keroog nee na caatu yaraax na taxaw di ma xaar maay def lépp bu loolu kese la man mun naa bañ a dem ci làmb ji suñ ma fayee pour ma dem bëree ma taxaw di xaar sama adversaire loolu yëpp samay supporter la na di ma xaar man ma ñëw def lépp. mais boo déggee neen dalaa xam te xamoo ko parce que a suivre waaw loolu am na xam nga ma wax la ko avant ma bëreeg dab daan serpent lañ ma jox mu bañ dem làqatu ma bëreeg dab daan mu dem ci Fallou jox caatu yaraax mais nag dégg naa mu wax benn kàddu comme ni ma waxoon keroog rek naan caatu yaraax pare naa ko bu yàgg toog di xaar loolu dafa yomb may yëg ci diini di entraîné di contact lu métti nga naan pare naa la bu yàgg saa yi loolu yanul maanaa mais est ce que tamit gisoo seen combat dañ koo njëkk a dox mu yàqu mu retourné na ko semaine. ma. waaw loolu du ma ci fenn moom fàllu ñu dégg mais est liggéey lu tax li la war a mën a daan mu tax jël la ci kàttanu yàlla mënul liggéey lu ma gis su ma ñëwee li may liggéey laay wane man ku ne xam na ne promoteur bi tëgg làmb daa bëgg mobilisation tey ñii ñëpp bu ñëwoon làmb ja yaakaar naa sa adversaire du am fu mu toog est-ce que ñii ñëpp dinañ la gunge ci làmb ja waaw lu ba di gis moom yar na maanaam yaraax ba nga dugg see fii bu doon caatu yaraax faalewul waa yaraax wala waa yaraax faalewuñu ko doo gis lii te suba mooy serpent moom mooy euh, suba mooy signature maanaam moom mooy open press boo fa demee boo gisee 30 personnes bëri nañ looy wax ni da ngaa bëgg wax yaa ko mbooloo bokkul sax bëla banaay kàppoo yi ñëw ci stade bi nga xam ne ñeen lañ ñii foo leen jëlee ñii nii. waaw lii yarax la boo ñëwee boo ñëwee open presse Moussa Ndoye di nga fa fekk lu raw lii boo ñëwee ci no sodo ak waa Dalifor ñëw waa Kër Massar ñëpp ñëw fi nga xam ne waa Alaay Paate waaw yaa ma gën a xam kon nga xam ne lii du neen dëkk nga ñëw ci dëkk man deewu ma di wàlliyaani fenn boobaa kenn ma topp mais sama dëkk laa toog xaar gars ñëw lan ngay wax ndax boo gisee lamb bi xew keroog lan ngay wax ñi nga xamante ni dañoo ànd ak yow ndax keroog gis nañ ci stade bi nga xamante ne mooy arène nationale diggante Alioune Seye 2 ak ñàkk jariñu la fa xew rafetul ci làmb lan ngay wax ñi nga xamante ne ñoom nga àndal. waaw keroog wax naa ko Mak TV dama koy waxaat fii ndax monde làmb dafa sensible ñun amuñu lu làmb dañoo bàyyi jàng bàyyi suñu métier lépp ne suñu option làmb la kon li xewoon ci stade bi mu fekk fa ministre bi Matar Ba fekk fa ñoo ngi koy ñaawlu te dañuy lancé appel CNG am compréhension xam ne jeunesse moom mooy doxee noonu fëgër ak doole lamb xel ak du xel lamb doole la mais ci géew gi la dox doxalee xel te géew gi nag keroog jum def dafa am parce que ki yàq lamb ji du mbër kon ñàkk deful dara Alioune Seye deful dara Alioune Seye dafa indi fëgëru jeunesse ñu ñaan CNG nag ñu jégal leen ñun loolu duñu daal ci kàttanu yàlla journée bi incha allah dinañ indi non violence indi yar ak tegin s yaru mu ñëwee sat CNG bu la neexee bu ñëwee sat parce que waa Yaraax yar ak teggin lañ xam bu ñëwee ñu toog ci dal ak teggin mais dañuy ambiance sax kenn mënuñu ko tar kenn mënuñu ko tere dañuy ambiance mu xam na ni bëreetoo Iba Mar Diop arène nationale ngay bëree ren jógee ko Yaraax yóbbu ko arène nationale pour su diggante ak Serpent. waaw loolu ñun duñ jël ay carré dañuy dox. dañuy dox waaw sereet sax non bu kenn dem moto yi dañuy dox parce que arène nationale mi mooy moom nga jóge tali bi ñëw fii kon ñun ñoom moom arène ba buñ fa ñëwee ci kàttanu yàlla jiitu fa serpent du am place Fallou jënd naa ay yëpp benn waaw kon làmb ji moom macha allah. boo amee loo koy wax mu ngi lay seetaan loo koy am ci làmb ji jaaxaluma su ma la dabee nga xam ne caatu amul morom boo ci caatu nag ngay comprendre kuy caatu loolu mooy yóbbante bi. yéen ñaar kuy njëkk attaqué làmb ji kuy dirigé lépp maa koy def. yaay attaqué. lépp maa koy def. yaay xeex lépp maa koy def. yaay daan maay bëree. may xeex may daan. est que xam nga ki ngay bëreel serpent champion la de. ah serpent champion bu mag la ci laaw. waaw mais ñun xam nga ndaanaan mooy day ndaanaan serpent ndaanaan la dafa day caatu di ndaanaan mais lépp nag dañ koy wax ci discipline ak yar ak teggin rek parce que signature contrat la comme nii rek bonne presse dañuy neexal mais serpent sama naataangoo la lamb moo ñu boolee ay doomu nday lañ. ci kàttanu yàlla boo ñëwee nga asay suba tey ñu def ñu def man tam ma ñëw une non violence bëri lu neex bañ a rusloo amateur yi. te boo ñëwee tamit man may def lépp man caatu waa Cambérène dañ lay gunge rek mais amuñu fa place ñu bàyyi la nga woote sensibiliser ñi nga xamante ne ñooy ànd ak yow ci non à la violence waaw gars yi a sama ginnaaw de li li lébuy di wax nee nañ xur-xur day am place mbalaaw balaa fi laa tourné di ko lambal waaw reng muy gaaw reng mbasa waaw mooy xurxur day emplacement la xurxur boo ko déggee jën bu ndaw la ci tefes gi lay yem fii laa tourné jën bu mag lay jàpp xurxur bu fa amee place day lamb kenn du ko jënd looloy xurxur waaw wooteel waaw maa ngi woo ñi nga xam ne ñoo nekk ci open presse bi ñëpp d'abord parce que lii ki la ñëwoon rek moom nga mën a gërëm quoi am na ñu am na ñi ñuy jàppale ku ci mel ne monsieur le maire Babacar Mbengue honorable député yi nekk Yaraax yëpp ñoom Ndeye Fatou Diouf ñoom Awa Niang ñoom Moussa Diakhaté ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax maanaam globalement ñi si des bu ñu doon séddee seen tur fii maanaam dañuy juum te bëgguma kenn mer te ñoom Tata Mame Gueye ñoom Ismaïla Diallo ñëpp ah ñu ngi leen di gërëm ñi si des nañu ma jégal mu demee plateau daan toog plateau ci kattanu suñu borom nañu jéggi seen tur. mais marque bi nga sol la. bi waaw marque la euh, Aliou Dia moo ko jox di gërëm waa Yaraax yëpp yee ini koy gërëm bu baax suñu ko yi aussi tamit sonn nañ trop ci ñun ngelawaayan bu ñu leen rusloo te loolu man caata maa ngi dem ci géej gi wane ko kilifa yi may ñaanal aussi tamit maa leen di gërëm bu baax ñun ay ndaw lañ rek xamuñu dara wax ji ñu fi wax ñëpp bu fekkee jub na ci yàlla la bu dee jub bu dee maanaam dëng na ñu ngi leen di jégalu bu baax a baax xam ne suñu dëngte la imaam yeeg chef de quartier yi ñu ngi leen di jégalu di leen baalu àq bu baax a baax di gërëm sama yaay bu yi nekk yaraax yëpp tout tànk yi capot caatu yaraax yi bàyyi ñu kenn fan si gërëm ñëpp waa presse yi aussi tamit maa ngi leen di gërëm jàpp ngeen ci bu baax gis seen mobilisation rafet na fan si gërëm naa gars yëpp waaw.